man Aminata Touré ba muy nekk ci seen biir xamoon naa ne le jour où la question du mandat va se poser. Touré dira non. na la. lool lool laa xam man. bu Aminata Touré nekkoon président assemblée nationale ba geddul dina dina ne de non dama lay laaj en âme et conscience. xam nga da nga wax non non déglu non non déglu rek non bul ngaa bul bul wokkatu. <laughs> il faut poser la question Aminata Touré. dama poser une question précise. <laughs> nga defe ne mi mi bi bi ah. accepté nekk te de liste amul base ñun ñoo ko jox suñuy base wooteel ko nga defe ne bu nekkoon président assemblée nationale dina ànd ak Sonko tey non je te pose la question rek. boo leen ko non non dama dama lay. non dama lay laaj. bu ñu ko defee boo leen ko deful woon li ngeen ko def tey tamit du génn ci seen parti. bay dem di ànd ak Sonko non non waxuma la loolu après ma tontu la ci lool loolu. tontu yow ci li ma la wax. ah, ah dans mes consciences. Mimi bu nekkoon présidente assemblée nationale. di wax ne il est contre troisième mandat. il est contre troisième mandat boo ko joxoon présidente assemblée nationale du ànd ak Sonko. Euh, donc à ce à ce niveau là. dégg nga yéen a ko def li ngeen ko def mu génn donc kon bu ma wax fii ne daf ba mu nekkee ci biir dafa contrôle non mm. non xam nga li ma la bëgg a wax dama la bëgg a wax dama leen yokkal Idriss.